naa ne sax léegi lañ ci euh, duggaale rek happy birthday à ma sœur Diarra Diong depuis Diamaguène ah moom euh, nag euh, c'est de la part de toute sa famille et de la sœur et de sa sœur ah maman Diong Diaksaawa donc happy birthday joyeux anniversaire à ma sœur Diarra Diong moo nekk noonu ngeen di ko gis à l'écran Diarra Diong depuis Diamaguène ah happy birthday à Rougui Mbodj de la part de ta maman Acha Sarr Acha Sarr kii nag doomu Acha Sarr la Acha Sarr euh, sama xarit <laughs> euh, doomu Adja Ombeliko la doomu euh, ah Neyman la waaw Acha Acha Sarr mi ngi noonu dundal say may di baawaan joyeux anniversaire à toi Rougi Mbodj de la part de sa yaay ak sa yaay yëpp ah euh, Acha jiitu ci moom Rougi Mbodj ñu ngi koy souhaiter euh, joyeux anniversaire alfa Omar Diallo de la part de la de sa famille et de tout euh, l'équipe de Yeewu Leen Alpha Omar Diallo de la part de ta famille et de toute de Yeewu Leen ñoo lay ñaanal anniversaire u jàmm ak salaam moom Alpha Omar Diallo happy birthday ah joyeux anniversaire à bébé Daba Sarr depuis Thiès de la part de Tata Mami euh, Mami Meng bu RFM Mbour Tata Mami Meng ñu ngi lay wax joyeux anniversaire euh, Daba Sarr depuis Thiès ñu wale Mami Meng bu RFM Mbour moom mooy souhaiter joyeux anniversaire waaw Mami ñu ngi koy nuyu bu baax suñu xarit mami ah euh, elle est adorable donc mooy souhaiter joyeux anniversaire à Bébé Dabassar depuis Thiès joyeux anniversaire à notre badiane nationale et internationale Ndeye Rokhaya Euh, qui vous aime et qu'on longue vie à notre bàjjen suñu bàjjen la bàjjenu Maas la euh, ah, Maas Ndiaye caméraman donc euh, ñu ngi koy nuyu suñu bàjjen la ñun ñëpp waaw yiw lool macha <laughs> donc mi ngi tudd Ndeye Rokhaya bàjjen national ak international longue vie à toi bàjjen Joyeux anniversaire à Sofia Kanté depuis euh, l'Espagne, euh, à Almeria plus précisément. Beaucoup de bonheur, de santé, joie, euh, réussite, c'est de la part de toute la famille Kanté. Mom Sofia Kanté, sa famille, yep, nous l'avons dit, jam, nous la souhaiter joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à Pendista Talibé Serigne Saliou, c'est de la part de Sitan. de la TFM euh, donc euh, Sitang euh, Pendista donc mu ngi koy souhaiter joyeux anniversaire ki ngeen gis ci écran bi moom moom mooy rek ki nga xam ne moom mooy di Sofia Kanté donc joyeux anniversaire anniversaire yaa ngi noonu di souhaiter waat joyeux anniversaire bu baax particulièrement à Rougui Mbodj doomu acca Sarr donc ñu ngi koy souhaiter joyeux anniversaire mu mel ne ba tey rek des na ci anniversaire yi ci yeewu leen bi joyeux anniversaire à mes jumeaux Aïssatou et Medoune Ndoye de la part de la famille Ndoye Thiof euh, depuis Yoff happy birthday à mes jumeaux mooy joyeux anniversaire Aïssatou et Medoune Ndoye waaw mi ngi noonu. samay samay samay rakk lañ ndeysaan ay euh, seex lañ ay seex lañ waaw seexu yàlla yi. seexu yàlla yi maman Aysatu ak Médoune waaw. ñu ngi ñu ngi dëkk Yoff maman Aysatu nekk koo xamante ne sama xarit la euh, dafa may encouragé si li may def ak yëpp xale la mais daf maa bëgg ma bëgg ko macha allah maa ngi koy ñaanal yàlla may ko gudd fan yàlla may ko wér. amiin ma koy ñaanal bu baax di nuyu seen waa kër yëpp nga xam ne dañoo baax ñoom caw caw ak waa kër gi yëpp depuis yoof donc maa ngi leen di ñaanal rek euh, anniversaire bi yàlla nañ ko yàgg feete yàlla defal leen gudd fan mhm. ak wér amiin amiin joyeux anniversaire ñëpp ñu fi def seen anniversaire ci bisu tey bi juddu bisu 16 juillet bi ñu ngi leen di ñaanal anniversaire jàmm ak salaam donc kii tamit Aïcha Frézy kii nag sunu soppe la comme ni ma la ko waxee rek ah. nekk ci li nga xamante ne moom moo di Facebook bi moom nañu tuddee nos aminotes parce que duñ leen xam mhm. mais elles nous suivent de près baax dañu yónnee ay messages donc vraiment moom tamit on tenait à lui souhaiter happy les aminotes aussi ah. ñuy suivre am nañu mhm. solo lool boo duggee sa Facebook sa anniversaire créé juste <laughs> joyeux anniversaire ñoom itam ñoom ñëpp rek di kontaan ci ñoom ngir message d'amour yi nga xam ne moom lañu ñuy mm-hmm. véhiculer à travers compte Facebook yi